yaa rabbana bi suurati almauni wajjih li xayri darara almaluni yaa rabbana habli bi xaqi alkawsari yumna alxayaati wa ujuri kasiri taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santal Sëriñ Tuubaa ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci turu Sëriñ Xamsatu moom Sëriñ Suhaybu jataay bi di ko waral mooy ndigal li nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Mountakha da ko joxe muy njàngum xasiida ak alquran te jaar ci Cheikh Basir moom Cheikh Abdoul Khadir ak sëñ Xabaan moom Cheikh Mouhamadou ak si ci mboolem taalibe yëpp sëñ Hamzatu di ci soññee ci taalibe yëpp rawatina ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci xasiida yi ak nuñ ci mën a yëngoo ak fuñ mën nekk di woo ñëpp ci ndigal loolu ngir bëgg ñu defe ko ni ko sëriñ bi diglee xam naa sëriñ Abdou Diop dana dikk leeral niñ ko war a defe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe murid waa ahlu xasaayit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi ñu bàyyi ko waaye di amaan mbégte ci ndigal li nga xam ne bàyyi ko na Cheikh al Xadim muy Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadul Muntaxa jaar ci jëwriñam Cheikh Ahmadul Bachir moom Cheikh Abdul Xaadir wàcc fi ci enlo xasaayit ci Sëriñ Amsatu Mbakke bi mu jaare ci Sëriñ Xaban Mbakke moom Sëriñ Fàllilu Mbakke mu mel ne Sëriñ Muntaxa daa dégg sëriñ bi ndax sëriñ Saliou mos na maa wax ne ma sëriñ bi de buñ ko doon mis misaal ak buum lañ koy misaale ne ma ak buum nag day baaxoo ñaari cat ne ma lenn cat li mooy alxuraan cat li ci des mooy xasaayid yi ku ci téye ci lenn cat téye nga ci buum gi waaye ku leen boole nag yaa téye dëgg buum gi sëriñ Muntaxa nag da leen a boole moo tax fu mu yëkkatee liggéeyub alxuraan yëkkati ca wet ga liggéeyub xasaayid yi Euh, liggéeyub xasaay yi nag sëriñ bi moo ci jiital sëriñ Amsatu Mbàkke mu ànd koog mboolem ahlu xasaayit gépp euh, sëriñ bi mu ngi soññee ci ndigalal sëriñ bi bëgg murit yépp waajal ko te fonk ko te jox ko yitte ndax sëriñ bi yàgg naa digle njàngum alxuraan ak njàngum xasaayit waaye nii ko santaane ak nii ma ko tërale mi ngi soog a am te sëriñ bi moom xam na li xew kon li nu war mooy li sëriñ bi digle rek ñu def ko maanaam jañ ak ñoddi moom nañ ko bàyyi ci loxoom moom sëriñ bi eh, amti kon luñ ciy fas mooy li sëriñ Moustapha wax rek mooy ñaanal ko moom sëriñ bi mu gën a wér te gën a mucc te gën fee yàgg la ca des lépp dañ ko koy delloo moom mu tànnal ñu suñu borom ndax lu mu tànnal moo gën ci ñun sëriñ Amsatu nee na mboolem daara yi ak daayira yi ak kuréel yi ak fu ñu mën a nekk ci goxe adduna yi mu ngi leen di jottali ndigalal sëriñ tubaa muy ndigalal jàng xasaayiti sëriñ tubaa yi njàngum xasaayit bi nag ni ko sëriñ bi bëggee gi yoon mooy kuréel gu ci ne fa nga ne nga defe ko foofee kuréel gu ci ne itam sëriñ bi dalaa delloowaat mbir mi ci sa bopp ngeen xool yéen ni ngeen ko mane ngeen waxtaan ci ba juboo seet waxtu wu wér boo xam ne dinañ ko tàmbali dibéer jii di ñëw hmm. waxtu woo bu jotee ñu daje fa jàng njàngum durus jàng njàngum yëkkati hmm. benn waxtu baa ñaari waxtu baa ñett luñ ca juboo ñu def ko ñaan dem bu subaa ñu waat ci waxtu woowee defaat la ñu defoon di ko toftale noonu yi di ko toftale noonu ba dibéer jëkk hmm. ñu matal ko ca dibéer ja bu altine ñu bokk déglu sëriñ bi moom Cheikh Ahmadul Muntaxa mu tëj liggéey bi sëriñ Amsatu nee na noonu la ko bëggee ñenn ñu ci nekk daal dalee na delloowaat ñu waajal ko seen bopp waaye li mu bëgg mooy waxtu wu ñu sartoo ba jàpp ko nañ xam ne waxtu woowee moom lañ jox seen Tuubaa waxtu woo jotee lépp luñ jàppoon nañ ko bay daje fañ waxoon defe ko nañ ko waxe woon ñaan dellu bu subaa ñu waat defar ko noonu loolu la sëriñ bi bëgg nun ñëpp lu bokk ci maase defe ko noonu yi liggéey bi na ñu fonk ko lool waajal ko lool yëg ko lool jox ko yitte ju ndax ni ma ko waxee léegi rek sëriñ Muntaxa moom làmbatuwut waxal na boppam ne sëriñ Tuubaa am naa ci feex ku am tawféex nag ci nekk ci gannaaw kilifa gu mel noonu war ngaa fonk ndigalam ci di ko fuglu kon ndigal laa ngi noonu sëriñ ba nga koy soññee bëgg bu dibéeree ñëpp tàmbali ko te saxal ko dibéer le 17 waaw ba dibéer ja dellu siwaat ci altine rek ci la ko sëriñ bi tëj